merci chers à la parole Babacar Mbaye merci madame la présidente monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di nuyu le ministre de l'économie du budget di nuyu ministre di travail chargé des institutions, di nuyu le directeur du budget le directeur de la SAPCO ak fonctionnaire yi fi nekk yépp suma temps sax duma ko jeexal ndax day bëgg guddi waaye dama ciy laal rek xëy na du bari c'est dommage qu'il n'est pas là et il l'a Je sais qu'il est de suivre d'or. Mais je ne lui refuse pas son petit master. Mais quand il qualifie Benno d'ignard, de gens qui ne comprennent pas le budget, c'est lui qui ne comprend pas. Nous nous, enseignons, nous nous, nous enseignons le budget. Nous avons été président de communauté rurale, maire, président de région, directeur financier. Je crois que nous connaissons le budget, ingénieur agronome, maîtrise en sciences de gestion, DS en audit, docteur en sciences de gestion, doctorat en relations internationales. Je crois que nous connaissons le budget. Et parce que nous l'avons pratiqué, nous l'avons enseigné. kon nekk fii di xalam yooyu amul njëriñ li am njëriñ mooy parlé de votre candidat, laissez notre candidat. Nous l'avons choisi. Il est en train de faire le tour du Sénégal sur le plan professionnel pour faire son travail. mais ñoom moom bu fekkente ni d'accordul ci ki ñu tànn parce que dégg naa soppi ngeen Bassirou jomaay la léegi kooku nag moom c'est le sommet du salafisme du salafisme bu ñuy wax vrai salafiste c'est Bassirou Diomaye mais tous ces gens ont été des agents de notre candidat. C'est notre candidat qui les a formés aux, aux impôts et domaines. C'est notre candidat qui les moo leen Moulin Tété, leen liggéey Notre candidat a été directeur général des impôts et domaines, ministre des Finances, ministre des Affaires étrangères, premier ministre. Ils n'ont jamais dirigé un bureau. C'est ça vous appelez l'expertise. Vous pensez que vous pouvez euh, tromper les Sénégalais, vous vous trompez vous-même. vous vous trompez vous-même dama ni ngeen dem tànn candidat kii ngeen fii indi nag sénégalais yoon duñ ko wooteel salafiste boo xam ni ren dem leen ci internet bi xool ma suta dem Touba ma suta dem Tiwaawoon di nuyu kilifa diine gëmul diine ji gëmul tariixa kooku sénégalais yi duñ ko fal c'est le vrai salafiste donc loolu teggi leen ko teg ko fële Amadou Ba bi ngeen di wax Macky Sall moo ko tànn Macky Sall du tànn cuuma cuune c'est heureux mon jeune frère Bara que tu fais l'éloge de ce complexe hôtelier qui est rue. Mais c'est la production de Macky Sall, c'est le travail de Macky Sall. Et rue 2 va commencer bientôt. Et d'autres hôtels également vont voir le jour. C'est le travail, c'est le concret. Mais c'est pas venir yor sa xalam di tama, ay ñi xamuñu dara, ñi ñi xamul mooy yéen. Amadou Ba moo leen forme defal leen lépp leen rek la d'accord ak yéen Atlas ak Mercolex. ba ngeen bëggee jël douze milliards yi la famille Mbergane il s'est démarqué et c'est ça qui vous a poursuivi jusqu'à li am solo mooy kee nga ca prison ba ngeen tànn ko mënta doon candidat dem tànn ko ne ca prison ba candidat jëmagu leen fu baax bu ngeen valable ngeen wax ko wuti leen candidat li ngeen di def du candidature il faut choisir un homme libre koo xam ni sénégalais yi d'accord nañ ci mën naa liggéey ca kooku Amadou Ba la Macky Sall du tànn suuma allahumma salli ala sayyidina